a dégg ñu ni moom mbër yi moo ci gën a néew ci mukaay kan foo déggee loolu man dégg naa ko man dégg naa moo ci gën a mystique Moussa Gningue de dégg naa tey mu ne Modou Lo tafeewul gàllaaj da si investir waaw nag alaaji nag kaa leen ma xamal leen moo ñu xamal de yow doo ñu xamal man dégg naa moom moo ñu xamal ku xeeb xaar fa fuufa yóbbu la dëgg la ñoom li ñuy liggéey moom mënuñu cee xeeb mystique. na wuyu kay ci laaj bi ko njaay wuyu laaj. mais moom ñoom li ñuy liggéey. Hmm. ana sax jos yow sax jos. sama jos jëm ak sax liggéey yow sax jos. josu lan sax jos yow da nga koo xeeb yow. josu ko da ngaa xeeb xar fa yow. xar fa ma nee ma jàq xool ma menn ma waaw waaw ah. foofa menn ma da nga koo xeeb. xeebal xam <laughs> ah dégg nga dama laaj bi Sénégal. dama lay wax rek naa gis ak sama waaw dama yow Modou. waaw am na loo xam ne moom tamit ci làmb lañ ko fekk. waaw si la bokk. waaw tey boo ko deful sax wala nit ñi sax am lu ñu la gisee ci làmb dañ naan kii dafa yab nit nii ah, ah. boo bëri woon yàlla dogal ñu daal la dañ kii dafa yab nit ñi. Mhm. dafa yab nit ñi. waaw parce que làmb wax dëgg ak musique ñoo ànd. Mhm. ñun fi fekk. Mhm. waaw te gis ji tey nu mu demee. macha allah télé yi bëri ah. média bi daal boo fi daanoo lu Bombardier waxoon rek boo fi daanoo waxuma la weer rek di nga daanoo ay at. waaw dañ moo tax tamit waaw boo daanoo. <laughs> moo tax tamit moo tax taxit. foo dégg rek fii fu baax la wala kii moom yàlla may na ko da nga fay def rek. Hmm. dëgg la yéen ñii sax waruma yéen a gën a. Eh, bul <laughs> traversé eh, eh, waaw yéen a gën a garaaw ñëpp fi nga toll fii macha allah yàlla na ko yàlla yokk.